yéen ñëpp mën ngeen a bokk génn kër sax bu ngeen yëngalee géejawaay waaye géejawaay leen di ñaxale ñaan géejawaay lan ba defal dara géej bu kat ñu ko xam ne ñun waa gars yi nuyu naa leen siyaar naa leen jox naa leen seen wàccuwaay yéen ñëpp bi nag gureet nag na mel ne mattum màggal nee dañuy menacé yaay neen Lat Diop ñaanuñu njekk ñaanuñu dara nañ ko bàyyi immédiatement nu mu gën a gaaw bàyyi lu mu gis ñu xam ne ñoom la ci waxe paa bii waxi paa bee nee na tamit encore ñoom du ñuy ragal yow bisimilaay salaamaaleykum fayagul la ngay waxi ñimeeg ragal lu fi indi loolu nga ne la gaynde pire la ku la ko wax. Hmm? ku la gaynde pire la. am muus la Lat Diop waxuloon fi Ousmane Sonko doo ñëwee géejawaay di nga xam ne lépp dëgg la Ousmane Sonko ñëw géejawaay campagne ba campagne ca rondolog yaayam nga génn Lat Diop dugg ca rondolog baayam nga génn. boobu fu ngeen nekkoon yéen ñi am cinq mille ak dix mille yi arrêté moo tax ngay mbaw dama laa bëgg a xamal lenn sa moroom nekku fi su ngeen bëggee ko ngeen napp ngeen wuti ko yéen du ngeen di góor lan jóob ñun bu dee góor la yaa ko wax xamuñu ko woon xamuñu góor la xamuñu jigéen la ñun ko yor suñu alal rek la ñuy wër buñ toppee suñu tànk ba sàcc tànku sàcc ba dugg kër lan jóob dinañ fa dugg mun ñoqat sàcc bi baa muy sàcc bi ñun loolu la ñuy wër xooluñu ko ñeme xooluñu ko ragal rax ci dolli nga ne buñ ko bàyyiwu tey tey tey lu ngeen gis noonu xam na yéen la tey de jàll na di jàll na fu ngeen ne fu ngeen nekk du ngeen génn ngeen ne géejawaay ngeen ko yeggale da ngeen a eggagul géejawaay bu ma suur njaay da ngeen a eggagul géejawaay eggagu leen géejawaay ngeen di ragal ngeen naan ma eh, eh, yow du réew mi tàkk foo newoon ngay onk nii ngay mel ne kuy publicité bu la gis nga lima la xamal yarul yar ba nga nekke ne mukk di lekk say tentaw say weemin yam ca rabino yépp la ñuy tëj rabbi duñ yam ci la jóbbe maire euh, jóob si jox nañ ko convoqué mook doom ja suñ ceeb bam ndërëxoon sàngoo saako ya du sedd di suñu alal ku ko lekk da nga ko goqi yéen waa kër jóob si ñu mel nii ba yow ngeen taxaw def seen conférence de presse ngeen conférence de presse ba billahi ñi sàcc alal ñëpp lañu ñus ci mbaam mi ngeen naan waaw immédiatement ñaanu ñu dara dañuy ragal génn leen lan jóob defeere nañ ko fu ngeen ne nii rek ngeen ko mënal ndellu dem tëdd seen kër bu génn nga ko waa ñun nañ point de presse sax ba nangam nangam da ngeen dong génn leen ngeen ne waa géejawaay déedéet da ngay wax rek géejawaay yónni wun la waxloo la waaw yéen ñëpp mën ngeen a bokk génn kër sax bu ngeen yëngalee géejawaay waaye géejawaay leen di ñafale ñaan géejawaay Lat Diop daa defal dara géej